ok eh, jërëjëf mbokk yi ñoo ngi fiiti tey ci Mauritanie ci eh, bis bi nga xam ne ñu ngi koy eh, wàccaayu Sarsara mu mel ni tey sëriñ bi woote woon tey fii njabootuk maam Cheikh Ibrahima Fall teew fi sëriñ Khalifa Fall moom sëriñ Amdi Fall Modou Mbend Khalifa maam Cheikh Ibrahima faal di ñaan sa borom yàggal ko lool te wéral ko waaye ñu làngook sëriñ Modou Mbend Badiane waaye ñu ànd ak ñu jëmm ci di wax ak yéen muy Baye Cheikh Ndaw bokku ci ñi nga xam ne tey ñoom la fi sëriñ bi yabal muy xalifa maam si Ibrahima Fall bis bis bi nag yitteel ko lool xam ngeen ne bi nga xamee ne mbokk yi dajaloon nañ fekk ko ba Touba euh, jébbal ko liggéey bi xamal ko liggéey bi it euh, waaye euh, waroon naa gën a gën a mën a sax yaatoon waaye nag sëriñ bi waxtu wu nekk mi ngi ci ndigali sëriñ bi xam ngeen ne Touba googu ay ndigal rek lañ fa bàyyi waaye sëriñ bi fonk gim fonk liggéey bi ak fonk gim fonk murid yi nekk fii moo tax tey mu yabale fi tey ngir ñu ñëw teewal ko fii waaye daal sant nañ euh, tey sëriñ baa ngi békk sëriñ baa ngi ñaaral mboolem mbokk yëpp rek sa borom nangu liggéey bi waaye nag lépp luñ ci def rek si Sëriñ Tuubaa nangu ko ci siyaar tey gi nga xam ne tey ñëw nañ tey ngir siyaar ko fi te te Sëriñ ne woon képp ku ma fi siyaar rek digge ca la nga xam ne moom la ci digge woon waaye Cheikh Ibrahima nag xam nga ne euh, Sëriñ Fallou bis bi ñu ngi ko duppe waaye ku xam diggante sëñ Fallou ak Cheikh Ibra it nga xam ne waa kër Cheikh Ibra Fall dañoo ñëw jël si seen wàll rek ndax bis bi damay wax ne buñ ko waxutoon waa kër Cheikh Ibra Fall sax am nañ droit waaye am nañ ci eh, sañ-sañ boo xam ne war nañoo mën a ñëw teew ndax damay wax ne Cheikh Ibra Fall Eh, sëñ Fallou égal yoonu murit ñoom ñooy yoonu murit kon yàlla na sa borom eh, defal ñu ndimbal ak taw fee xam naa sëñ Modou eh, moom kàddu yi daal kàddu yi sant la kàddu yoo xam ne mënut a ñàkk ngir tey kii nga jëmu ji nga xam ne tey moom la ñu àndal muy sëñ Khalifa Fall di doomi sëriñ Amdi Fall mu du Mbenda loolu kawe na nag lool waaye nag sëriñ bi yitte ju mu am ci liggéey bi moo tax tey mu yabal doom waaye yabale si suñ Modou Mbenda mi ñu ànd ak ñoom ñu ngi ñaan sa borom defal ñu ndimbal ak tawfeex wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu